te loolu mooy jotaayu Cheikh Ibrahima Niass lu ñu ci tàmbali rek li ci des doo bëgg mu ñëwaat ndax foofu noonu al ana daim la le temps permanent xam nga ci la yàlla di def te léppi bàyyi yàlla la léegi rek ñun ñépp yëg nañ xaal yu neex xaal yooyu nag Cheikh Ibrahima Niass la ci wax lu am solo mu ne tuujadu xalaawatal imaani ala salasati fi zikri fi eh, fi fi salaati wa zikri wa fi tilawati man lam yajidil xalaawata ala salasati faalam anna allaha axlaqa baabuhu bàyyi mu ne ñu ngi amee bànneexu gëm yàlla ci ñett yi ci julli ak ci tudd yàlla ak ci Euh, jàng alquran bàyyi mu ne képp koo xamante ne yàlla mayu ko muy bànneexoo ci ñett yi na xam ne yàlla tëjal na ko buntam ba alhamdulilah ba ñun moom ñu ngi bànneexoo ci tudd yàlla ndax biñ ci tollee léegi kenn ku nekk la nga yëg xam nga ko taalibey bàyyi ci boppam mi àgg ci yàlla ba xam ne julli ndekete yoo xam moomu ko aarifa ko moom moom bu ne allahu akbar rek mu ngi bànneexoo ci julli ji mu ne nit ñi tamit dañuy bànneexoo ci tudd yàlla ak ci julli ak ci jàngum alquran waaye képp koo xamante ne xàgg nga fi nga war a xàgg dëgg bu ñu yëkkatee alquran dinga ci am bànneex boo xamante ne mën nga ko am ci julli mën nga ko ci am ci tudd yàlla muy ñetti stationnement yoo xamante ne benn bu ci nekk boo ci wàccee chargé wu xawma ma ku mu jafe nag waaye warta jafe aarif bi nga xamante ne dëgg-dëgg léegoo léeg mu gane xadara yàlla bi te nii la nag niñ ko defee nii noonu la bàyyi doon wax ne nii la iza jalastum li sama fa ataw kulliyatakum istagriqu fi yarida ala xaatirikum la raqsa wala tabassuma wala nazara fi wujuhin illa ida hajama alxaal wa ma min aglabi al axwaali abara an nafs aw kama qaala bàyyi mu ne isa jalasum li samaa suñ toogatee ci géewu sikkar fa ataw kulliyatakum ñun ñëpp nañ indi sunu lépp mën na am ñu mu jafe waaye warta mën a jafe taalibe baay bi fa aataw kulliyatakum indi leen seen lépp istagriqu na ngeen lab fii ma yarida ala xaatirikum ci tembe ba ngeen di sikkar baat ba ñu yëkkati képp ku nekk ci mbooloo mi ba kii sikkar ñoom ñëpp nañ lab ci baat boobu ñuy yëkkati nañ ci lab fa aataw kulliyatakum indi leen seen lépp mu ne laa raqsa mu ne bu kenn fecc wala tabasuma mu ne muuñ sax bu ko def wala nazara fi wujuh bul xool nit sax di ko piis di ko jox ay isaar di ko wan mi sikar bi neex naag neexul bàyyi ne yooyu yëpp na ci jóge illa isa hajamal xaalu lu dul koo xamante ne xaal bee ko not nag muy def ay caprice loolu yoonu kenn newu ci moo xam muy ree baa muy jooy baa muy bërëngu moo xam tubb xaalisam sànni di baatre yooyu ay façon ne xaal la nañ ci maandu am na ñoo xam dañuy xaal di jooy ñii di xaal di ree ñii di xaal baye xaalis ñii di xaal di dóoraate ñii di xaal di bërëngu loolu moom xaal kenn du ci konte kenn mu ne lii dab nag borom xaal yi te du bakkan loolu nañ ci maandoo waaye bu ñëpp xaalandoo dëgg dëgg nag ah man de mënumaa xàmmee bakkan jàpp ak kii xaal ci dëgg man maandu naa ci fa ataw kulliyatakum boobu dafa am solo ci zakir yi fa ataw kulliyatakum boobu bu la bàyyi bàyyi woon doo ko mën fa ataw kulliyatakum ñëpp a ngi naan laa ilaha illallah kalimatul xaq to loolu képp ku deful ku labul ci géeju kenn ak yàlla ki buñ ne laa ilaha illallah suñ la indiwul doo dem mais su fekkee ne bàyyi dimbali na buñ ne laa ilaha illallah buñ la jëlsee nga dem buñ la jëlsiwul nga dem loolu mooy barke bàyyi ci ñun bu ñu demee ba ci yàgg fa ataw kulliyakum ñu ñëw ci yonentu yàlla muhammad laamiya wala muhammadul mustafa ñëpp di ko si sikkar xaal bi jóg bàyyi nee na fa ataw kulliyatakum kon kenn ku ci nekk na lab ci xaqiqal muhammadiya lool war naa yomb taalibay baay bi yaa xam ci zahir saxel xel dem màkka kaaba ga wala lu lay nuru yonent bi am na ñoo xam ne dépassé nañ foofu mën nañu euh, euh, lab fu gën a xóot foofu ci yonent bi am ñoo xamante ne dépassé nañ foofu mën nañoo lab ci fu gën a xóot foofu waaye daal buñ ne Muhammadul Mustafa wala laamiya rek li bàyyi santaane mooy fa ataw kulliyatakum ñun ñëpp nañ lab ci xaqiqal muhammadiya ci waxtu woowu suñ nee naa la tijaani wala ñuy wax min karamati cheikh ñëpp xam ne ci cheikhu tijaani la bahrul wilaya bàyyi nee na fa ataw kulliyatakum kon waxtu woowu kenn ku ci nekk na dugg ci cheikhu tijaani di ciy xuus moo xam sa xel dem faas baa ngay fàttaliku benn tijaan baa ngay fàttaliku daal jegeel lu lay jegeel cheikhu tijaan yi fa ataw kulliyatakum nga dog kaa am wala ñu ne euh, ni nga ko waxatee dégg alfu salaati ma salaami ñëpp xam na barhama ba un wara un alifun summa ha un fa ataw kulliyatakum ñun ñëpp nañ lab ci saalum saalum bi kenn ku ci nekk nag niveau bi nga toll ci moom nang ci lab mooy géej ji géej yi waaw mooy jant jant yi mooy asamaani asamaan si foo ko fekk rek foola ndax anaa inna zanne abdi kon loolu la bàyyi wax ne fa ataw kullatikum kon istagriqu fii ma yari yarida ala xaatirikum waxtu woowu nag bu fekkee ni ci foofu la nekk rek jotaay ba gërëm lu waaye nag bu ñu bàyyi bàyyi woon lii yëpp mu ñu sant duñu ko mën waaye moo téye sunu loxo ni mu koy ñaanee naan yàlla ñu yàlla téyel sunu loxo moo téye sunu loxo stationnement yooyu ñu mën cee naviguer yasiruuna sayran fil majalisi fa ajaban li sayru julusi yusbixuuna suxura bàyyee ko def ci ñun kum bàyyi woon doo dem voyage permanent boobu ñuy wax loolu bàyyi ñu dimbalee ba boo nekkee ci wasifa sax fa ataw kulliyatakum suñuy sikkar fuñ ci toll rek yow taalibe bàyyi bi mun ngay déplacé wu ñu ñëw ba ci jawatul kamal allahuma salli ay ayni rahmati rabbani ñun ñëpp ñu dem màkka allahuma salli ala ayni alxaqi allati tatajalla minha urusu alxaqaiqa ñu dem faas allahuma salli ala talaati alxaq bil xaqi kan jil azami ñun ñëpp ñu nekk saalum bu la neexee loolu yëpp nag suñu ko mënee mooy voyage permanent bi bàyyi di wax naan yasiruna sayran fil majalis buñ ko mënee c'est parce que grâce à Maulana Cheikh Ibrahima Niass kon waxtu jot rek dëgg-dëgg la bàyyi doon la la la maalam la kii doon wax euh, euh, euh, maam Abdou Niang naan hamdan li rabbi ala liqaa'i aw farahazi min zil awa woy dem ba ci yàgg di ko ne yaa woote yow bàyyi ñu wuy la ba ci yàgg mu ne uhu yaa woote sax wuy pour ñu kenn bañ a gis boppam mooy bu ñu waxee ne kuy sa sëriñ ñëpp ne bàyyi dëgg la ku ne la nga mën tey grâce à Maulana Cheikh Ibrahima Niass zahiriyan wa batiniyan moo tax sikkar bi biñ toogee léegi yépp am nañ ko lépp luñ fi recommandé rek yàlla defal nañu ko loolu nag ci boppam ñu ngi koy jërëjëfee Maulana Cheikh Ibrahima Niass am na lu fi xew léegi nag bi ñuy sikkar gis naa ndaw seli sollu zone li moom tamit yuuxu bërëngu ba tey mbir mi ci la bàyyi indi na ko ci jaari rasaayil mu ne qul lillazi yanha an wajdi ahlihi ida lam tazuq maana sharabil hawa da'na bàyyi mu ne bu sikkar bi demee nag ba am ñuy xaal di yuuxu di jaxasu tàggoog seen sago di def ay manière bàyyi nee na waxal ñële ne xamuñ lii ñu nekk ba ñuy bëgg a yedd buñ xamul li ñu nekk nañu ba nañu ba qul lillazi yanha an wajdi ahlihi demal nga waxal ma kii tere suñu manière yi ñuy def isa lam tazuq maana sharabil hawa bu mosul li ñu mos da naa nañu may ngant wa inna isa tib naa wa taasat uqulana wa xaamir xamral xaraami tahattak naa bàyyi mu ne bu ñu toogee yàlla laabal sunu sunu jamono ñun ñëpp ñu lab di naan sàngaray marifatu billah wala sàngaray yàlla tahattak naa faw ñu dekone bàyyi mu ne nag fala talumi sakraana fi xaali sukrihi bu leen yeddati mukk ki xaal ba nekk ci digg xaalam bu ko kenn yedd faqat rufi at taklifu fi sukrina anna kenn togguñu dara ci waxtu woowu parce que nekkuñ fi balaa nga naam naam ne fi loolu yëpp bàyyi ko wax indi ko ci jaay rasail dégg nga te bàyyi wax ku mu indi ci téeréem yi rek daf la bëggoon wax ne bu dul woon moom sax man ma wax ko kon bu ko indee bàyyi ko wax léegoo léeg sax mu indi ab yooyu ba pare dolli ci loo xamante ne lii bàyyi ko wax kon nag jotaay bi loolu rek laa ci gisoon di wax tamit ne li ma ci gis mooy li ma ci gën a neex mooy bëgg sa sëriñ loolu Cheikh Abdou Ndaw daf ñu ci jox lu am solo ku ko séen rek sa xel faw mu bipp la ci imam Hassan Cissé xubbu sadiq laa budda an yazhar asaruhu almahabatu iksirun loolu la bàyyi wax mu ne ki bëgg dëgg faw jeexitalu mbëggeel ki mu bëgg mu fi ci moom mu ne ñu ne ko bàyyi lu tax mu ne mbëggeel cuub la ti boo ci dugal faw mu soppi meloom wala dina ko jox luy wone ne taqoon ak moom bu ko soppiwul lépp tamit dana am luy wane ne takkoon na ak moom te loolu mooy sirru mahabba loolu mooy mbootu mbëggeel te loolu rek laa bëgg a wax balaa may jox micro bi te imam Ghazali da ci wax lu am solo te yaakaar naa imam Ghazali quelqu'un la ci islaamu suufi ci xam-xamu zahir oustaz Braham Diop bés mu ne ma ci néegam ne bu fekkoon ne rek njàng rek dana tax bañ a ut sëriñ mu ne imaam Xasali du am sëriñ parce que toll noonu na fi kiy jàng toll moom toll na fa waaye bu dëppee ut sëriñ rek mayatuñ ngeen ngant mu bañ a ut sëriñ ma ne ko waa oustaz damaa déggoon fu ma mës liir ñu ne nit mën naa bañ am sëriñ ci kaw suuf su demee bay gis yonent yàlla Muhammad Jahraan pareegu ma rek oustaz Braham Diop dagg ma ne ma déet ñaata nit ñoo jóge ci gis yonent bi ñu yebal leen ci bàyyi mu ne kon loolu ci siècle yu njëkk la waaye bi bàyyi ñëwee ngant amatul moom la Mouhamad Zeynab waxoon Cheikh Mouhamad Zeynab wali taalamu anna al imaama qad nasaba ci ngeen xam ne rek imaamu ahlillahi sosu na am na tur am melo am jëmm kon kenn amatul ngant dégg nga ñu ne tëju jeex na Cerno Xasan dem wax ne hëllama ila ulumi al qawmi qad infajarat manabiu sharabuha wa talaqat sumusuha fi samai zamanikum wa daat nuruha fi ajwaai waxtikum Cerno loolu la waxoon aca leen ila ulumil qawmi jëmi xam-xamu góor yàlla yi bamp na mu ngi wet xadit fajarat manabi usharabuha yéen ñëpp ngi soxla ndox toq-toq am waaye maa ngi leen di wax ne mband mba toj na ma ngay walangaan xadit fajarat manabi usharabuha wa talaat shumusuha fi samai zamanikum bu fekkee ne wilayatu la mu ne fenk na ci seen asamaanu jamono boobu baay lay wax wadaat nuuruha fi ajwaa'i waqtikum bu fekkee ne jant gi fenk na li leen koy won cerno nee na jant baa ngi sar ba tugg fa gën a xóot pour yëgal leen ne jant ak borom ak jamono borom jamono fenk na tey loolu la cerno Assane Deme waxoon kon kenn amatul ngant ci kaw suuf kon nag kooku noonu tey ki mu yar dëgg-dëgg buñ jeexee ci moom war nañoo jeex ci moom mu yar imam Hassan Cissé nga xam ne moo ko yaral boppam dégg nga te te te yar googu ci boppam nuruwul yar waaye tëgg la ndax nit ñëpp dañ ne koo yar mu jël sa jikko wala mu jël sa melo laa xarwa ba mu yaree imam Hassan Cissé ñëpp xam nañ ne imam ci mag ñi la jóge ci mag ñi la bokk ñëpp xam nañ ne imam ci mag ñi la bokk parce que ki mag maqaama gawciya bi ñuy wax ki ko ame ci jamono moo ko yaral boppam ba pare préparel ko boppam yaakaar ko ginnaawam bu fekkee ne sax bàyyi jóge na fi te leen yéem imam dem na wax bés lu ñëpp di dégg loo xamante ne jafe naa dégg mu ne dégg naa yéen yéen a ngi wax ne Medina Baye dara amatu fa maa ngi dégg ñu ne lépp dem na waaye maa ngi leen di wax ne ñun de tee leen li ngeen tee ñu toog ci liñ toog maa ngi leen di wax ne ñun alxames bu jot ñu gis Baye jaxran rend ko compte tête à tête te loolu imam wax na ko eh, loolu loolu lu yéeme la jaxran dem leen waaye ba ngeen xaar nag ba gis ñun ñu ut ci dara ci yéen loolu imam wax na ko bés jaxran publiquement saraxatan la ko wax nga gis ne kon nit ñi daan nañu àgg foofu te ñu ngi àgg ba tey ci yàlla Cheikh Ibrahima moomu nag ak jotaay bi loolu la may xencu mooy sirru mahabba nit ku bëgg sëriñam imam Ghazali dafa wax wax ju am solo pour ma joxe micro bi imam Ghazali dafa wax ne ida aradta saadata fi dunia wal axirata mu ne képp ku ubbut ku bëggu texe ci àdduna ak alaxira mu ne faj al nafsaka fi qalbi waliyin min awliya jël sa jëmm ji denc ko ci xol wali yàlla yi mu ne fa qiila lahu kayfa zalika ñu imaam Ghazali loolu lu mu mën a nekkee jël sa jëmm ji denc ko xolu jaamu yàlla mu ne fa qaala tuhibbuhum wa yuhibbuunakum bëgg leen rek ñu bëgg la mu ne boo leen bëggee dañ lay bëgg buñ la bëggee nga nekk seen xol yi loolu la imaam Ghazali wax moo mu ne fa inna qulubahum hiya mahalla nazarillahi mu ne ndax seen xol yooyu ñooy barab bi yàlla di teg bëtam waxtu wu jot mu ne la allallaha yajiduka fi qalbihi fa yarhamaka mu ne mun naa am nag yàlla fekk la ci seen xol yi ñu yërëm la kon am nga bénéfice mu ne fa ida ahbabtahu wastaqamta ala al adabi maahu wa xaafazta alayhi yakunu zalika sababu istiyaqihi laka mu ne bul bëgg rek yem si mu ne boo leen bëggee wastaqamta maahu nga jub ak ñoom maanaam nga topp leen dëgg-dëgg topp boo nee di way sama sëriñ na doon sa sëriñ boo ne bëgg naa ko na mbëggeel gi ñu koy gis moo tax imaam Gazali mu ne boo ko bëggee jub ci moom wastaqamta alal adabi nga am teggin lool sa digganteeg sëriñ bi mu ne wa xafasta alayhi yakunu dégg nga sababu siyaq yi lakka nga sàmmwante sa digganteeg sëriñ bi lépp luy sa xaq sa digganteeg moom kanam ginnaawam nga sàmm ko mu ne loolu dana dana sabab lu mbëggeelam ci yow imaam Ghazali mu ne fa iza staqalaka mu ne bu la bëggee nag taatika himmatun wa fuyudatun bi qadri istiyaqi laka looloy bénéfice bi mu ne boo ko naxee moom wali bi ba mu bëgg la mu ne dina am ay himma maanaam kattanam ak dooleem dana toxu ñëw ci yow dégg nga mu ne ak ay tëbboom dana toxu jëm ci ci yow mu ne ay mbëggeelam jëm ci ci yow mu ne li la ko may mooy bëgg gi nga ko bëgg mu ne li ci gën a am solo mu ne wa ay raaytahu wa anta tuhibuhu tasri min qalbihi ila qalbika ahwalun la tastati'u iktisaabuha bi mufradika te lii moo ci gën a neex mu ne bu fekkee ne bëgg nga sa sëriñ bëgg ko dëgg-dëgg bëgg mu ne boo nee tak jàkkaarloog moom mu ne li nekk ci moom day toxu ñëw ci yow ci ay tëbbam yi nga xamante ne ay xalawaat la def ay xalwa yu garaaw la def pour àgg foofu ay guddi yu métti la jaar pour àgg foofu xeex bakkan yu métti la jaar pour yéeg foofu mu ne boo jàkkaarloog moom te muy mbëggeel gi di dëgg li ne ci moom yëpp day toxu ñëw ci yow loolu xam ngeen ko ci iPhone yi léegi iPhone ak iPhone da nga leen di tàqale rek laaj la ne ndax da ngaa bëgg li ne fii yëpp ma yàq ko fi nga ne waaw mu yàq ko fa iPhone na la ko sa nurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim mu ngi noonu iPhone ak iPhone te am na iPhone ak iPhone sax da jox ay image ak ay son du perte benn qualité yaakaar naa <laughs> sama waa ji xam ci kundul xam na ci dara bekaay ñoom ñi techniciens yi xam nañ ne téléphone yi am na yoo xamante ne foofa jaaralee sa son ak say image doo perte benn signal ah loolu lay woon góor yàlla am na yoo xam ne boo jëlee ci ñoom doo perte si benn signal waaye nag boo bañee perte benn signal fexeel ba bëgg ko bëgg bi ci war te bu ko war ginnaawam ci kanam ak ci ginnaawam loolu la imaamu Ghazali wax mu ne bës boo ko bëggee lii taxu jël ci sa xol laa tastatiu iktisaabuha mu ne di dem bay def loo xamante ne wallahi buñ la bàyyoon sa bopp doo ko jot ba pencam yàlla mu ne waaye li ko sabablu sa bëgg ci moom te mooy dëkk looloo tax kan wa zalika li anna naasa fi lmahabati wal qurbi min allahi darajaan looloo tax imam Ghazali mu ne lii moo tax ma naan leen nit ñi ñu ngi rawantee ci ay darajaat ak ci ay maqaama ci buntu bëgg moo tax bàyyi ñëw ne laa yunaalu ma indana illa bi sidqi wal mahabba kenn du jot lu nekk ci man lu dul bëgg ak dëggu bàyyi nee na du ma waxul ne du ma la jëriñ te bokkuñ jamono Baay waxul ne duma la jëriñ te yaruma la sama kër bàyyi waxul ne duma la jëriñ te gisuma la bàyyi waxul ne duma la jëriñ te joxoo ma sama xaalis sa xaalis bàyyi waxul ne duma la jëriñ te bayaloo ma tool bàyyi waxul ne du ma la jëriñ te xeexaloo ma xulooloo ma déedéet benn buntu rek la la Baay laaj bëgg ak dëkku Oustaz Braham Diop mu ne dolli ci ak documenté wu moo tax xaw ma ban lycée moo mu njëkk a ñëw ci man association lycée yi fekk ma jóge ci histoire Braham Diop ca suba sa ñu ñëw rek ma ne leen dégg naa wax ju am solo damaa toog ak oustaz Braham Diop di waxtaan ak moom mu ne ma ma ne bàyyi nee na laa yunaalu maa indanaa illa bi sibti wal mahabba mu ne ma dolli ci ak documenté wu bàyyi nee na kenn du jot ci man dara lu bëgg ak dëggu mu ne ma dolli ci ak documenté wu muy bëgg dëggu documenté wu bëgg dëggu documenté wu ci Alaaji Ibrahima Niass bëgg dëggu moo ko wax mais documenté wu da cee bokk ndax sëriñ bi ku woon dundam dafa riche ci ci lépp côté niteem rek war nañoo bind téere wala war nañoo suivre Maulana Cheikh Ibrahim Niass si niteem rek doon gim doon sénégalais rek war nañ ci jàng Alaaji Ibrahim ci patriotisme am doon gim doon africain rek ñi fiy jaay ay africanité xaw ma na lañ koy waxee xaw ma na lañ koy tëggee noonu bàyyi leen mën fop ci bëgg nit ku ñuul ak bëgg Afrique taqaloo loolu moo doon relation sax Cheikh Ibrahima ak ak ak chef d'état yi te duñu woon jullit bëgg gi bëggoon Afrique moo taxoon mu leen doon takkee dégg nga war nañoo jàng Baye Niass rek ci wilaayatum dafa sori war nañ ko jàng ci ci ci ci tijaaniyatum war nañ ko jàng ci ci ci ci mbokkoom ak ñëpp war nañ ko jàng ci oyofam yaroom tabeem yaatoom boo ci jàng rek mooy sa sëriñ ndax nag ñun amuñ am nañ droit nag ñu jàngee ko ci alaaji Ibrahima Niass wa huwa cheikhun bi jami il maratib kon man bi foofu rek laa bëggoon yemale samay wax dégg nga wax ne ñun dañoo ñëwoon rek pour pour tënku waaye benn rek laay tëjee bi ñu laajee Maulana Cheikh Ahmad Tidiane Chérif lan mooy maqaama xawsiya dafa am ku ko laaj léegi yoonu bi may ñëw France mu woo ne ma sëriñ mi damaa bëgg nga wax ma lan mooy xawsiya ma ne ko déet xawsiya Cheikh Tidiane yi daf ko wax léegi nag mu bind ko yónnee ko ko mu mu dabaat ma fii dégg nga xawsu booboo yar imam Hassan Cissé ndeysaan diggoon na ma seet si bi ma koy mujjee gis ma ñëw fekk Seydina Cissé bu la ma doon woowee bu ne xutbu rek imam ree mu ne ko waaw yow su tur wi rëy na de fekk man ku ma dajal Medina Baye laaj la man laaj laajte rek maa daqoon laajte ñëpp ku ma dajal dama lay laaj foo ma fekk sama poos yi maa ngeeg feuille feuille buñ bind ba pare wala feuille bu ma teg pour bu ma laajtee damay laaja laaj ba Seydina ne ma gis nga Aziz gis nga lépp mënoo kaa dajale nag waaw fii moom lépp ci fardul jaami la nekkoon waaw jéem a la tënk sa dund gi ci li nga jot a am fekk mujj gi fu ma gis rek ne ma xutbu Seydina rakku Imam Hassan Cissé la mooy doon ànd ak moom waxtu wu jot ndeysaan bëgg ko lool maa ngi fàttaliku doomi baay nga xam ne moo tax taalibe war nañu jàng lu bëri xoola Seydina ni mu bëree xam-xam Cheikh Abdou xam na ci dara ni bëree xam te ku yaru mi dina xam na kan mooy Seydina Cissé barke Baay Ñas ni mu bëree xam-xam ak ni oyofee ak ni mu jegee woon imaam benn jour dama toog ak moom ñuy waxtaan rek imaam woolu ko rek mu daw génn maa ko yóbbul dàllam kër imaam Hassan tànku neen te muy doomu baayam bari xam-xam lool te ñëpp xam nañ kuy kuy Seydina Cissé daw maa ko dab dàllam ba buntu kër imaam laa ko joxee dàllam waaw moo tax yooyu sëriñ bi gis nga ahut laahut malakoot jabarut naasut yooyu dafa sori léegi nit mën na ko jeexal te du tus nit mën na koy répété suba ngoon te du tus nit mën na ko dégg lool te du tus nit ñëpp mi ngi rawee ci jikko Baay Ñas ñëpp ci jikko la leen rawee Chérif ñëw na ci El Hadj Ibrahima Ñas bàyyi di ko xidmal ba ci yàgg rek mu génn tàllal loxoom Cheikh Maay Cissé da koy nettali léegoo léeg Baay Ñas am na jàmm ñëpp jommi Baay Ñas am na jàmm mu ne sëriñ bi mooy waajoo xamante ne dégg nga dafay sopp day topp gor di ko di ko di ko teral ba mu soppale ku jaam bàyyi ñes am jaam a ngi nii su ko neexee jaay ma su ko neexee bàyyi ma ma dem ñu ne waaye lu xew mu ne bàyyi ñes mooy jàpp gor di ko di ko teral ba mu soppale jaam loolu la naar bi waxoon mu dem ba ci yàgg di suivre Cheikh Ibrahima Niass si woyam boobu ba ci yàgg mu ne mu ne yuril ida jahla ma yaxuuna min xasadin li yazkuru xaajatuhum fa alhamdulillahi mu ne gaa yi tooñ baay ak ñi ko ñàkkee teggin ak ñi noonoo ba jëf ñëpp dégg mu ne ndeysaan xaaral bañ dajeeg bàyyi buñ dajeeg bàyyi bàyyi dana rafetaatal kanam gi wàcce ko yaatal ko ba ñeme ko pour lan mayaat leen occasion ñu demandé waat mu joxaat leen mu ne waaye nag damaa bëgg a tëjee sama waxtaan ci lan mu ne fa amma mahabbatuhu ay bëgg gi bëgg ajazan xoolal bu ci wax xayraana an wasfihi loolu yéem na kenn ku ne yéem na ko bàyyi ni bëggee yonent yàlla muhammad amul kenn ku ko mën a melal xaalima al mustafa la aqla yudrikuhu dégg nga moo tax gis nga yu neex yii man pour man si la taalibe yi war a concentré wu jàng kan moo doon saalum saalum bi ci tabeem ci yaatoom ci oyofam ci disponibilité am dégg nga ci yaroom ci ci ci ci ci bëgg taalibe yi ci sonn pour gaa yi jëriñu waaye nag ci jàkkaarloog jalaal ak jalaal te doo xàmme kanam gi ida kanat al aqdaaru min maliki al mulki fa siyaanu indi maa yusiru maa yubki amul benn photom booy xool rek gis ne foto bi da kaa bett wala noo sëriñ bi tey nekkul à l'aise bàyyi waxtu wu jot rek yaa ngi gis kanam gi neex a photo ndax wax na ne isa kanatil aqdaaru bu fekkee ne ne adduna bi di déroulé vers moi du kenn ku yàlla fa si yaanu indi ñaar yooyu yem ci man baay li may bégloo ak li may jooyloo ba pare mu wéyeeku yonent yàlla muhammad ne laa laa taral moustapha fi silmi mukk mukk doo gis yonentu yàlla Muhammad mu nekk ci geer ba ci jàmm xar kanam bi di soppeeku non non ki mu doon rek la doon sëriñ bi xaaral ma yemale ko fii damaa bañ a gudd rek ah waaw alhamdulilah léegi ma tëj bii rek pour xawsu yi dégg nga ci maqaama xawsiya ah, ah, waxkat moo doon Cheikh Ibrahima tuuti rek benn benn satral rek la boo xamante ne ah, Cheikh Tidiane ko wax mu ne mu ne xawsu mu ne rajulun na benn jàmm benn waaju garaaw la azimun xam nga Cheikh Tidiane taxaw naan azim azamatu bu ko Cheikh Tidiane gisee kon loolu lan la mu ne xam naa ne daal waaju ponkal la rajulun karimun noobul la azimun ku ponkal la parce que roogu kawe lay doon taxtaaju ilayhi sharifun mu ne noobul lay doon taxtaaju ilayhi naasa moom la alam gi di soxla Cheikh Tidiane wax de xiina di tiraari fii ma xufiya min umuril muhimmati mu ne moom la nit ñi di soxla bu nit ñi ragalee mbir yi leen gën a itteel seen digganteeg seen borom wala ñu am lacune seen digganteeg seen borom wala seen buntu wilaaya wala sax ci àdduna bii tey mu ne bu ñëpp rëng-rëngee ba kenn amatul foo jëm mu ne waaja lañu wujal ci mu ne te niñ koy xàmmee nag mu ne wa huwa mustajabu du'a ku ñuy nangu ñaanam la te yaakaar daa bëriwul ku wax ne musuma tàllal yàlla loxo mu delloo ko kon loolu ay indication yoo xamante ne bëgguma guddal texte yi waaye ñëw rek pour sant yàlla ak sama mag sama xarit sama sëriñ man dama ne leen faydu bii ku la ëpp jikko mooy sa sëriñ ku la ëpp jikko mooy sa sëriñ mun ngaa làkk arab lool baax na mun ngaa yokk texte lool baax na waaye ñun ñu ngi rawantee ci jikko te sëriñ bi ku ko jàpp rek ci jikko la ko jàppee Cheikh Abdou Ndaw ku ko jàpp ci jikko ña ko jàkkee te yonentu yàlla Muhammad nee na euh, képp koo xamante ne tey dégg nga euh, mën na nangul nit mayam rek mag la bokk te loolu imam Hassan wax na ko bés mu ne dafa dem Màkka ñu présenté ko benn sérif mal ayn ne ko kii setu Cheikh Ibrahima Niass la nee na ci saa rek sëriñ bi def improvisé benn woy ne fama abbara al insaanu an fadli nafsihi bi itiqaadi al fadli fi kulli fadilin mu ne sëriñ bi serif bi woy ne fa maa abara al li an fadli nafsihi mu ne nit daal mbaaxam munu koo wax baa mu jëf ko bañ xam ne kii a baax lu dul mu gis ku am mbaax lu mu tuuti tuuti mu nangul ko ko mu ne ko alaaji ibrahima ñes noonu la meloon sa maam waaye loolu ñu ngi koy gis ci Cheikh Abdou Ndaw yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla sàmm ko yàlla yëkkati maqaamaam yàlla bu ko kenn ëppale ci buntu imam Hassan Cissé man xam naa ne wutul kenn ci lenn ndax am na ku mu doyloo te kooku amoon na lépp ndax lu doyoon bàyyi rek war naa doy ku bëgg a bàyyi te imaam Xasan doyoon na baay dégg nga te doyloo woon na ko dégg nga maa ngi sant nag Pape jaata bu baax àndandoo gu dëgër la man li tax mu neex ma mooy fu ma gis sëriñ bi rek gis mu den ak moom déggoo keroog ma ne ko mooy raw xaano sëriñ bi waaw <laughs> dégg nga dégg nga xaw ma ni fàqalaa koy tuddee xaw ma neer jinne yi doon ànd ak Alaaji Ibrahima Niass eh, Pa Moussa Bagay nee na am na boo xamante ne fu bàyyi war a jëm dana ko ratissé ay yoon yu bëri sëriñ bi doo ko mu ne am nag jinne boo xam ne doon ànd ak Cheikh Ibrahima Niass mu ne ñee doon taxaw pont Nioro bi kii ngi woon Koto Kawoon kii ngi woon Saam mu ne am na koo xam ne fu bàyyi jógee ànd ak moom waaye nag maa ngi lay wax ne jinne yooyu muqaddam yi ñu ngi am ay jinne yu mel noonu léegoo léeg nga gis sa benn taalibe wala sa benn àndandoo boo xamante ne doo xam noo koy def salaatullahi thumma salaamu